صلاة na ñaseen li muy représenté ci diine ji di ko représenté ci Sénégal xam nga ni doo bàyyi ginnaaw lew na ñaseen ku xam Cheikh Ibrahima ñas li muy représenté ci diiné ak ci Afrique ak ci àdduna bi maanaam di nga ko bàyyi xel te loolu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo ñu ko gën a xam parce que ñëw na fi du benn yoon du ñaari yoon kon na ngeen gëm ni dafa agseegul waaye mu ngi ñëw dëkk bii ku xam démbam xam fi mu jaar ak li fi jaar ci ay cadre kenn mënta tabax Sénégal te doo wax ak ñoom kon na seen xel dal yi ngeen di dégg yëpp nag ay manipulation la ñun nag manipulation dafa yàgg yàlla dafa dogal mooy defar sax suñuy mbir heure boo jógee pour diaboliser Ousmane Sonko Ousmane Sonko day gën a yëkkatiku moo tax loolu moom nañ bàyyi ñiy diaboliser rek ñu continuer di diaboliser ñun ay doomi daara lañ na leer di ay muxaddami Cheikhu Tidiane man sama kurus gi duma ko caaxaane su ma gisoon daree ñàkk fayda ci Basiiru wala ci Ousmane Sonko du ma ànd ak ñoom man ku ma xool xam ne namm ma dara kaa ngi dégg ñun ngor lañ àndeek ñoom ak Sénégal Cheikh Baye mbay Niass mooy nga ne sëtu Cheikh Ibrahima Niass la dañ la cig kenn mënu koo nax waaw kon waa Kaolack ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di wax ni yàlla nañ fi ñëw ay yooni yooni yoon ñu ngi nuyuwaat bu baax sunu kilifa Cheikh Mahi ñas ñaanal ko yàlla mu bàyyi bàyyi ko fi dëgëral ko ak mbooleem kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi. yal na yàlla defal leen ko yéen ñëpp euh, Sénégal. ëllëg la yaakaar ëllëg ci ay ndaw lay tabaxoo ndaw yoo xam ne ndaw yu xam lañ waaye du xam rek yem ci mais xam ak ràññee itam dina dimbale nit ngir mu gaaw a àgg fam jëm Sénégal am na ay réalités yoo xam ne dëgg la kenn kenn mënagu koo dindi léegi luy sax dappet amut yàlla dafay emal lii ba fii mu emale ko fii leneen tàmbali waaye luy sax dappet moom amut waaye lii dinaa ko fi jëlee itam amut yàlla mooy def yàlla mooy dindi yàlla nañu yàlla defal ñu Sénégal lépp loo xam ne dafay dolli sénégalais bu nekk góor jigéen mag ndaw ñu yëg ne seen Sénégal a ngi dolleeku mu ngi jëm kanam ci ay doomam ci ay borom xam-xamam ci ay borom alal ci ay ci population Sénégal yëpp muy góor muy jigéen fu mënti nekk kenn ku nekk yàlla na ko yàlla may yëgu yëgu responsabilité ne dañoo war a dooleeku ñoo yem fii bon nag waruñoo dellu gannaaw dañoo war a puus mu jëm kanam te lu mën nekk la ndax lu ko mën a nekkal mooy li koy amal yëpp yàlla may na leen ko yàlla may na ko génération bu ndaw bii di màgg si yàlla may na leen xam-xam yàlla may na leen cewartaane yàlla may na leen ñu am doole poser question ah parce que feeg àggagoo ci poser question rek dama ko fen mais boo àggee nag di poser question wóor na leen di nga ut réponse pour question boobu ngay ngay ngay ngay ngay poser su ko defee question yi yëpp nag mooy ndax ñun ñii comme ay sénégalais ñun ñii comme ay kaolackois ñun ñii comme ay jeunes lan lañ mën a dolli ci àddina bi ndax mën nañoo dolli wala mënuñoo dolli suñ mënoo dolli naka lañ koy defee ni ñu koy defee mooy nii ngeen def nii yëpp ñëpp a ngi ànd booloo nekk benn benn sénégalais rek moo fi benn sénégalais rek moo fi nekk ñu ñu fi toog ñii yëpp benn sénégalais rek lañ te kenn ki li mu bëgg mooy mbooloo mi yëpp moom lañ bëgg mooy dañoo bëgg am ci suñu réew tranquillité dañoo bëgg am jàmm dañoo bëgg am ay dirigeants yu nga xam ne xam nañ fuñ jëm ñu ànd ak seen peuple pousse jëm kanam ndax ay dirigeants sans peuple amut peuple sans dirigeant amut donc bon ñoom ñaar waxtu wu nekk ñoo ànd jamono bu nekk ci seen dimbalante ci dañ mën a dëggalee dañuy bëgg a dëggalee sama sama taxawaay benn xale ñëw ne ma sëñ Mahi war ngaa kontaan de ma ne ko ndax lan mooy da daan wax xale yi xale yi xale yi léegi am nañ président wu xale donc bon sa <laughs> sa sa wax àgg na fa mu jëm waaw am nañ président wu xale léegi euh, yàlla nekk xale bu yàlla dëgëral yal na yàlla nekk def ko xale bu yàlla taxaw suñ taxawaay ci suñ réew mooy ku yàlla teg ci kaw réew mi kooku lañuy ànd ak di teg moom amuñ parti amuñ idéologie pouvoir bi fi nekk nga xam ne moom la yàlla teg ci moom kàttanu yaay amee réew mi pouvoir boobu ku nekk war na koo ñaanal boo amee xel ku nekk war nga koo yéene jàmm boo amee xel ku nekk war nga bëgg mu réussir boo amee xel ndax réussir am ak jàmm ak yëpp dafay sotteeku ci ñun rek ñun ñëpp ñoo ko bokk moom. donc bon kenn mënut a taxaw ne damay taxaw damay taxawee sama pouvoir lu dul ànd ak moom rek ànd ak moom di ko ñaanal ba bëccëg après di leen di leen yërëm parce que di di di di ñuy jànkoot ci biir réew mi moo gën a tuuti di ñuy jànkoot ci biti. parce que euh, Nations Unies a ngi fi banque mondiale a ngi fi Amérique a ngi fi France a fi réew yu ngan yëpp a ngi fi te danga ngaa war a jëflanteeg ñoom jëflante boo xam ne dinañ xam ne kii góor gu bëgg a tabax la ñu mën a dimbalanteeg moom. donc man kooku yërëm ko ak ñaanal ko moo gën a éloog population bi ñu di ko koy defal di ko di ko di ko ah wax yoo xam ne du noonu di ko waxal yoo xam ne du noonu lii nag taxul ne. opposition war na am war na am war na fee nekk parce que dafa war a nekk ah waaye nag opposition ak pouvoir ak population bi yëpp dañoo war a ànd fu ñu bëgg a dem fu ñu bëgg yóbbu suñu réew lu ñu bëgg a tabax pour suñu réew bu boobaa ñun ñëpp nañ am réponse ne li ñu bëgg yëpp ci suñu biir réew ànd jàppante dimbalante moo ñu koy may muy kii liggéey ki nekk ci diine comme kër yi wax nga ne da ngeen ñëw seet si benn euh, pépinière mairie nag yi pépinière la ah seetal ñi fi dëkk ñëpp ñi fi ñi fi fi dëkk ñi ci gën a bëri étranger lañ bàyyi ko ñi moom kër yi ñi ci gën a bëri ay étranger lañ bàyyi ko ñoo fi ñëw ñëw bon nag daka jekk moo gën a doon pépinière bi nga xam ne eh, eh, eh, ñi fi màggee ñëpp ñi fi juddoo ñi fi juddoo fi lañ dëkk waaye ñëpp ci biti lañ bàyyi pour ñëw ànd def seen doole tabax Mérina ba Mérina ak fi mu àgg hmm? te amagul soixante-dix ans te adduna bi yëpp xam nañ ko bokk nañ ci parce que góor ñu ànd ak seen doole ak seen dëgër ak seen bëgg-bëgg mën nañoo def miracle ah miracle miracle dootu bàyyeekoo asamaan miracle ci ñun day bàyyeekoo ci ñun nit ñi ñoo ko mën a def su ko defee nag ñu ngi kontaan ci seen ànd nii góor jigéen mag ndaw borom xam-xam ak ñu amul xam-xam ñëpp ñu ànd dañoo bëgg a dimbalante pour Sénégal yal nañu yàlla may suñ Sénégal googu ni ñu ko bëggee yëpp yal ñu ko yàlla defal suñ taxawaay ci réew mi yëpp mooy ñu ngi ñaanal suñ autorité yi yal na yàlla dolli leen leeri xol yal na yàlla dolli leen kattan yal na yàlla dolli leen bëggeel ci seen biir réew ak seen population te yal na leen yombalal li ñu yóotu rek yal na leen ko yàlla jox ah ndax li ñuy yootu yëpp lu baax la rek pour ñun ak fu ñu mën ci nekk bon nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñi ngi kontaan ci ànd ak yéen ñu ngi leen di wax ne ñu ngi ànd ak yéen ci suñu zahir ak suñu baatin lu ñuy ñaan Sénégal tax ñu di ko ñaan lu ñuy bëgg Sénégal tax ñu bëgg ko ak yéen comme yéen ngeen bëgg Sénégal tax ngeen bëgg ko wan ñun ñëpp yal na ñu yàlla dimbale liñ bëgg yëpp yal na ñu ko yàlla woon ñu gis ko suñu bët yal na ko fi yàlla bàyyi pour suñuy doom ak ñii ñëw ñëpp ci ci suñu ëllëg ñu xam ne fekk nañ bàyyi yoo xam ne fàggu nañ seen kemb kàttan yàlla defal na leen seen kemb kàttan ñun ñoo war a continuer te yàlla nañu ko yàlla defal ñu ngi leen di gërëm yëpp euh, euh, Baye Mbaye ak euh, Babacar ak ak ak yéen ñëpp itam ak ñëpp itam ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla amee ndoo leen yar nañu yàlla dool yi yàlla amee moo mooy maye yar nañu mayal boppam yàlla yëkkati yar nañu yëkkati yàlla yaatal yar nañu yaatalal lu euh, fi nekk luy barkeel doomu aadama rek ci réew mu mënti nekk yan nañu ko yàlla may yan na ko yàlla may Sénégal te Sénégal war nañoo nangu ñun ñëpp ne Sénégal réew mu barke la ku nekk nag am nga sa sa code booy xoolee ku nekk am nga sa idéologie booy xoolee ah sa sa sa code sa idéologie mun na la atteloo comme ni nga bëggee yow mais réalité Sénégal mooy ne réew mu kawee la réew mu màgg la parce que li xew mooy Sénégal réew mu ndaw la ci Afrique par rapport ak kon Nigéria euh, amul doole waaye Sénégal ci côté religion moo jiite Afrique Afrique yëpp ci côté diine Sénégal moo leen jiite xew-xew bu diine am ci Afrique balaa africain kontaan na ñëw defee si ko Sénégal ndax wóor na leen yàlla dina ko bon nag Sénégal ci réalité réew mu mag la waaye ñi fi dëkk itam kenn ku nekk sa idéologie bopp nii laa gisee nii laa xamee c'est tant pis ak moom c'est droit la ah kenn du la ci wax dara waaye nag gën a la gën a xóotaat nag sa jàng pour Sénégal lan la ñu mën ko dimbala ñu mën ñu mën ci dimbalante waxante aayut saagawante aayut xastante aayut ah Amérique bala moo laata àgg fii yéen ñëpp ay jàngkat ngeen xam ngeen ne moom emutoon ci saaga xaste ne fetal la daan xeexee ku ne xam ne sidd ak ba bala ñoo agsi fii ñu agsi lu nekk xew na fa ci rayante waaye fi nekk àgg nañ fañ jëmoon ñun tamit buñ buñ buñ wax rek xas saaga te jëmuñ fenn fuñ jëm yal nañ fa àgg ñun ñëpp yal nañu yàlla dimbale dimbale Sénégal dimbale leen kontaan nañ ci toog ak yéen euh, bu gënoon a yaatu dinañ leen gënale rayal leen toggal leen waaye ah, ba beneen yoon incha allah.